député maire. de Pastef ñoom interdiction du cumul de mandat. waaw ñoom nag li ñu waxoon daa leer. cassette des députés maires de Pastef. liire réer Birame Souleye lu mu wax Birame les principaux s'intéressent. waaw waaw waaw waaw. Amadou mu ne en principe le cumul de mandat. n'est pas accepté dans le Pastef. waaw. mais nous avons une situation inédite. amul inédite de. <laughs> Babacar Mbengue maire de Hann. la question n'a jamais été abordée dans taxawu. waaw bokkuma ko. Eh, boo ko nga bokk. taxaw taxawu la wax taxawu. taxawu taxawu la wax. waaw. non boo ko taxawu yow. Ah, ah, non non non sart Yewwi sart waaw sart Yewwi moom ci respecté ko la nit ñi dëkk de sart Yewwi moom bu Yewwi waxee ne gars yi cumul de mandat amul képp kuy maire. da ngay da ngay da ngay bàyyi ak nekk député. démissionnaire waaw après installation. c'est ça waaw waaw. sarta ga nag dafaa newul mais am na ñoo xam ne au niveau de leur parti. dañ ko doon bañ waaw. non dañ ko fa wax. waaw muy passif. dañ ko fa wax respecté rek. waaw dañ ko fa wax. dañ léegi nag waaw. léegi nag dañ ko respecté wala duñ ko respecté. léegi nag le le grand débat est-ce war na am. waaw loolooy débat bi. est-ce war na am. dañ ko war a dugal nag ci luwaay. loolay laaj waaw waaw waaw loolu war naa ko gis nga ni ñuy tere ni ñuy tere ni kii. Euh, transhumance gi bu ñu ko bàyyee nii mu volontaire rek. ne dañ ko war a dugal ci wàllu. dañ ko war a def transhumance bi te gis nga transhumance bi sax fi ñu taxaw nii dafa xaw a yomb xam nga Abdoulaye Wade sax nee ku jógee ci coalition wala parti bi la indi assemblée nga démissionné tu mm-hmm. perds ton mandat mais bu la neexee nga ne ma mais nit ko benn jigéen bu bokk réew mi ñëw ba assemblée rek. mais <laughs> noonu <laughs> mu mel ni du moom ma maa ngi réew mi. ma maa ngi maa ngi taxawu. Euh, waaw waaye man daal kenn moom ginaaru kenn nenu ma. foo fekk kuy wax ginaaru kenn nenu ma naa fekk la. taxaw ci digg bi. déet. lay nëtt. di wooy sa koy di wooy lay nëtt. te idée ko ko yow. tappalekat mënta weesu nit ku taxaw naan damaa neutre te yàlla subxanahu wa taala sax neutrewul. yonent yi ana kan moo mës a neutre ci yonent yi. am na benn borom xam-xam mu ne la neutralité est une forme de la wax na dëgg. bon mënu koo weesu. bi mu joxe mooy boo fekkee gone di ab mag ak mag di dóor gone. Ah. même boo leen xamul. Ah. parce que da rek ne man sama go gone sax gone ak mag da ngay àtte sax dafa bari. waaw nguur gi rek nguur. nguur askanam wala nguur ak benn parti ci askanam rek. waaw ñu ah, man daal je ne suis ni de l' opposition ni du pouvoir. en tout cas je suis légaliste euh, euh loyal un euh, euh, républicain vraiment quelqu'un qui aime son pays ku aime son pays doo tëddee njaaxaanaay waaye yàlla ci boppam lan moo tax moom tëddeewul njaaxaanaay dama lay laaj. am ku yor yat di dóor askan. askan wu fi ñëw. yàlla tànn waaye yow ma ne askan wu ñëw yàlla tànn na kenn. ne ko kaay ma def ci yow ngëneel. jiital la. dégg nga far ci yow. di la yónnee sama malaaka bi jibril di wax ak yow naan la xul waxal gars yi ne leen. ma ma taamu la yow. ma taamu la ci gaa yi yow kaay. loolu mooy faral la. lu tax sama mujjee ñëw mu faral ko. invité Moussa muy dox ak dàll yi mu ne ko yow doo doo dindi sa dàll yi. waaw ngay dindi sama moket bi. tapis rouge bi simil. waaw simil na dag dindil dindil dindil. waaw Moussa rek lay dindi. te Moussa ñaan audience kat. waaye Mouhamad moom ñaanul audience. salaasalaam. déggoo ma de. te keroog bi ñu ko recevoir daa ñëw di simi daal la waa ji ne ko non sa yow xam naa ne sa dàll yi kaay sa waay kaay. yére solal waaw. jëndee woo ko gaay ci bal bi gaay original yéegal. ah sa yére bi baax yaay ñaw ko. way ba pare taal ma xoolal ba te ko neexal sax nag faf. wallaay waaw mais xanaa kookoo far. Mhm. ngay gëm way man je ne suis ni du côté de l'opposition ni du il faut savoir assumer man day dëgg dëgg fa yàlla man moom ànduma ak Macky faut assumer ses positions day sërif bi ànduma ak Macky mhm. man te leer na nañ Ndeye Aïdara sërif boobu defaguma sax mouvement ànduma ak Macky waxantuma la ba ma defee mouvement ne na fay rakk ji jóge ñu defaat coalition ñu ne ko moom ci boppam na fi jóge mais et puis yow xanaa xamoo même moom sax wallaay yow lay gën a naw te yow la gën a soxla Macky guddiñ toll nii buñ nekkoon sërif bi nee na daa bëgg a daje ak yow day daw faxastalu ba mbëkku kon du dem Mali Demba Malem gii bu ñu nekkoon honorable député maire de la ville de Guédiawaye nee na vraiment il va te voir dana ëlbatiku fukki yoon ak juróom-ñett ne fomm naa tukki gi ah waaye lii sonal nañ nit ñi ñëwal. léegi ko yéene waaw.